¡Vamos! Pape euh, tur bi nan la. Pape waaw. maa nekk président association des jeunes couturiers de Thiaroye Gare. association bi lan moo ko tax a jóg. waaw association na bii moom daanaka dimbalante la suñu biir rek. Mhm. a tax ñu sos ko. Mhm. dimbalante suñu parce que xam nañ ne kenn kese. Mhm. am na loo xam su ko bëggee def du mën a nekk. bu fekkente ne mbooloo la ñu boole suñu biir nag xëy na. dina ko am ni mu ko bëggee loolu bokk na ci li gën a tax jóg association mooy booloo dimbalante suñu biir. d' accord d' tey jii ngeen ñëw euh, for bee di seet seen ay

xalaatuñ ne ay xale yu bon ñoo nekk fii rek dañ leen sànni foofu waaw parce que li ñu xalaat mooy ay xale xam ne hmm. leen fi indi hmm. comme njëm da moo fi indi nañ leen jéem a jubal li leen jubal dee mooy waxtaan ak ñoom hmm. loolu mooy ñu nekk xam ne bi bi chaque année dafay am dañuy boole suñu ay doole ku ne tailleur na ñaw ay loo xam ne mën nañ ko dimbalee nit ñi léegi loolu moo ñu taamu ay ñaw yoo xam ne dañ ko ñëw suñu ay loxoy bopp at mu jot ñu def bu ko mu nekk ay cadeau yoo xam ne koy may ndékki ndaw ak ñoom ensemble jéem a réinsérer parce que tamit nit moom mënul def ay njuumte rek nga bàyyi ko mu dem noonu comme ça waaw da koy jéem a yow xamoo ko ne ko lii ay njuumte la bu ko defati bu mu la galati loolu mooy indi suñu journée bi ngay gis d' accord d' accord waaw muy kon de action bu noble euh, monsieur Diong mm-hmm. léegi euh, sa membre yi mm-hmm. sa membre ñi nga xam ñooy say membre nii ñoom ñëpp euh, ban kàddu nga am boo wax jëmale ko si ñoom message bi ngay lancé jëmale ko si sa mbokk waaw a nga fas mu daw daw teel nañ ko laabale ñoom ay jàmbaar lañ mm. franchement parce que li ngay gis ñëpp seen doole seen alal la mm. li ma bëgg mooy ñu gën a góorgóorlu rek mm. gën a góorgóorlu lu waay xam ci lu baax mu ñëw indi ko lu waay am ci lu baax mu ñun ñu boole suñu doole mu nekk daal bokk na li mu leen gën a ñaar dëgg la dëgg la merci waa paysan bi aussi parce que ñoom tam yombalal ñu ñëw bi ndaxte bu ñu ko xam ñoom tam du mën a nekk ndaxte ñun dëgg la ñun ñoo bëgg a dimbali ma ñoom tamit jàpp nañ ni ñu jàppee mooy dañ ñoo yombalal lépp bu ñu ko jafaloon tam du mën a nekk di leen sant di ñoom waa paysan dëgg dëgg amoon benn partenariat la bu baax fa boo xam ne chaque ñawal ay yére su ko defee ñu toog waxtaan en même temps aussi ñu ciy bàyyi suñu coordonnées xale bu soxla su génn rek boo bëggee nekk tailleur ñu orienté la si suñu bëgg vraiment jéem a parce que am nañ ñu yóbbu leen si ay atelier foog naa bu fekkoon loolu kese la ñu réussir bu doon benn nit kese boobu boobu kese la ñu réussir foog naa mais en même temps aussi dañu amaale ay projets yoo a sori bu parce que ñu xalaat bu ñu boo xam ne nañu ñu am benn centre boo xam ne nañ fexe ba bépp xale bu jigéen na rek ñu jéem a récupéré mbéy ci centre bi jàngal li ngay def ba defar la parce que aussi état bi rek mënuñu ko xaati lépp quoi parce que parfois il ñi parce que kenn ku nekk gox bi nga dëkk yi am ñu développé quoi ñu caaree dañu duñu xaar kenn ñu jóge fenn ñëw duñu defar caaree quoi ñu ñoo koy defal suñu bopp bon xam nga léegi nag bon ñu ñu gërëm ñi nga xamante ne si tamit jàpp nañ parce que affaire bi dañ koy yaatal quoi parce que édition yi passé yëpp dañ bëggoon def di ko yemale suñu biir mais ren dañ ko yaatal si biir waa Thiaroye vraiment ñëpp jàpp nga koy rafetlu def si si def nañ seen yëpp am na benn booy parcelle xam naa il faut ñu tudd gërëm moom aussi demee si moom vraiment bi ñu ko expliqué si saa si dafa yëkkati cinquante mille jox loolu aussi lu rëy la ci ñun parce que wane nañu wane na ni tamit vraiment moom lu ñu jëmal caaroy quoi parce que mënoon nañ ñëw mu xoolee ñu beneen bët mais bi ñu leen expliqué laaju sax ay explication dafa yëkkati loolu aussi ñu si kontaan en même temps aussi ñu am suñu ay association yi nga xam ne ñu suñu ginnaaw vraiment ñëw jàppale ñu ñu am benn représentant gaa yëpp daal ñu ngi sant di leen gërëm di leen xam ni kontaan nañ si teewaay bi parce que yombul woote ñu ngi lay yomb mais parce que lool rek la ñu am quoi booloo rek mooy doole quoi te lii nii war a dañ waa benn lii bu ñu ko defoon jour weekend kenn du xaj fii moo tax ñu préféré def ko jour ouvrable te def bu si bëri bu ñu am temps loolu moo tax ñu toll nii vraiment ñu ngi remercier ñëpp ñi xam ne jàpp boulangerie di remercier boulangerie yi nga ne bi ñu demee si nga leen tamit dañ si jàpp jox nii dañu après dañuy dugg si biir waxtaan ak ñoom pour ñu xam ne fi ñu nekk aussi nekkul bon moo leen fi ñu nekkul dara moo leen fi ñu napp kese la quoi te dañu bëgg bu fi tamit nga bañ a duggaat loolu mooy suñu objectif mooy suñu ñeene si la dox quoi di sant ñëpp di

visite bi ñu fi def ne wax dëgg yàlla bu fekkee dinañ dégg tuuti rek mhm. buñ fi jigéen dinañ changé quoi mhm. te gars yi moom initiative bi ñu jël rafet trop mhm. te booy pare nañ képp euh, euh, Karo Fass waaw bi moom noo ko gisee am na importance trop. parce que ren mooy troisième édition bi ñu koy def. trois années yi passées fi ñu ko doon def mais bu ren moom vraiment. ni mu réussir moom daal mosul réussir moom am nañ yaakaar trop que ne booy yi ñu leen wax yëpp dinañ ko dégg parce que vraiment ñun ñëpp boo xoolee li nekk gënal leen quoi dafa yàlla lu wees ci jàmm te gën leen wax dëgg lañ jàpp nañ ñu génne jàmm donc boo ko nekk seen xel quoi pour ñu nekk mooy kontaan parce que ñu nekk xale yi vraiment am merci beaucoup grand tur bi nan la. Euh, waaw euh, visite bi moom noo ko gisee. suñuy suñuy jarbaat xam nga rek euh, erreur moo leen dugal fii ay xale nañ

te initiative bi dama ci dama ci dama dama koy rafetlu di sant téer yi nga xam te ne ni ñoo fi ñoo ci ànd yëpp def ko ndax ñun li rek ñu a suñu société quoi maanaam ñun ñoo nekk suñu ak rek dafa toog chaque instant dafa toog dafa toog faw ñuy génn def yii nii maanaam di jàppale suñuy rakk yi xam te ne ñoo nekk fii leen jàppale wu ñu amul keneen kuy jógee feneen di leen jàppale ñi fi nekk nii ñëpp suñuy gox foofu lañ jóge quoi ko demee Thiaroye Sam-Sam côté boobu ñu jógee ndax lu am lu am hasard amul ndax ñu ngi fi dugg rek suñu benn benn booy boo xam te ne nii peut être moog suñu suñu moog ñoom magam ñooy ànd xamuñu yoon ba xam moom mu ngi fii kon geste bu ñu doon def nekkul geste boo xam te ne nii pour ñun la mais pour Sénégal bi yëpp la waaw noonu lañ ko defal sant waa Thiaroye yi nga xam te ne ñoo si jàpp ba affaire bi yëpp demee nii quoi sant merci beaucoup grand merci grand tur bi nan la waaw sëñ Fallou Dieng waaw Sika Mbaaw mais Adou Mbaye ku suñ fàllu couture ah waa ka suñ fàllu couture ah waaw tey visite bi noo ko dundee mais hmm. hmm. hmm.

Ah, d'accord ah. waaw merci Charlotte d'accord jërëjëf grand tur bi nan la Abdou Aziz ah d'accord yow grand a tur bi neex naa ah sëñ Abdou y <laughs> yow aussi impression par rapport à Kibi, euh, visite bi mbégte rek ci daal parce que xale yoo xam ne fii seen fii seen place daal parce que loolu moo tax ñu ñëw fii pour xool daal lu mu gën a rafet daal képp ku fi génn tamit ñaan yàlla tamit yàlla yàlla tegaat ci beneen yoon boo xam ne ci yoon nekk na ko ñaan bi a mën a bokk société ban message ngay sa mbokk tailleur yi looy wax ci gis nañ seen geste bi rafet na trop. waaw non suñu mbokku tey ñun ñu nekk ci baal yi. ñoom ku dégg association bi ñu ngi ci war a mën a daaw ñoom association association waa Caaroy la. waaw d'accord bépp ca bépp teer bu dëkk bu nekk Caaroy rek war nga cee mën a ñëw bokk ci adhéré ci parce que développement la ñuy wut. suñu développement nag jeunes dañ cee war a mën a bokk. développement moo la sans sans les jeunes. te jeunes yi bépp sax jeune boo xam ne moom teer nga nekk Caaroy rek ñu ngi lay woo pour nga ñëw bokk ci. parce que li ngay tax lépp Merci beaucoup. Euh, présentez-vous. Euh, moi, le... oh, Bye, Fall. Avec, euh...

bi mooy euh, ñëw wan leen xamal leen ni ñun nekk ci biti ñu ngi leen di xalaat. Mhm. am ay projet yoo xamante ni ñu ngi ko teg pour bu ñu génnee leen a dimbali gunge leen. parce que y avait des élèves ci biir yoo xam leen ëllëg mën mhm. mhm. mais aussi am na ñoo xamante ne tamit ëllëg mën nañu nekk ay maître théorie yoo xamante ni nañ jàng leen. bon beneen beneen beneen option bi ma ci gis mooy que. Euh, am na ay nit ci diine yi leen fii ñu fi ñëwaale delloo leen ci diine xamal leen ni yàlla lu baax rek la am amul leneen ñetteel bi mooy ku mel ni man

toog salaamaaleykum soxna si. soxna si tur bi naan la. waaw. Euh, d' accord. Mhm. Euh, seet si fii euh, sunuy frère sunuy doom. Mhm. ñu bokk ak ñoom naqar gi ñu nekkee ci biir kaso mhm, mhm. bon ñun lii chaque année dañ koy def mhm. ñëwal leen yëre rafet defaral leen ndékki yu baax ñëw waxtaan ak ñoom ndax li leen fi indi jombul kenn te ay xale lañ rek xale day def erreur te erreur mënut a ñàkk si doomu aadama mais bu ñu ñëwee waxtaan ak ñoom ñaax leen pour beneen yoon ñu bañ ko defati mhm. li leen fi indi yoon ñu fexe ba nga xamante ne mhm. beneen yoon mhm. dootuñu fi sax jaarati ndaxte keroog yàlla dogal na bu ñuy def marche di publier action réception bi euh, am na koo xamante ne daf ñoo dab daw xel yi métti di xaalis bi bëri jox ñu naan benn année da ñoo fekk forbe man nii ci laa bokkoon te ren li ngeen fa daf ñu motivé woon ba tax na ren maa ngi yor sama place euh, vraiment bu ma leen séenee damaa kontaan sama xol dafa sedd bon amoon nañ si ay xale aussi yoo xamante ne euh, ñu leen di jàngal métier couture bi jëloon nañ fi ñaari xale yoo xamante ne ñoom bu ñu génnee fii daaw dañoo ñëw wër suñuy place ñu encadré leen dugal leen suñuy place kon nag dañuy sant yàlla bu baax di ñaan yàlla rek yàlla génnee leen si lii ñu nekk si yàlla génneen tigi d'accord jërëjëf jërëjëf soxna tur bi Babacar Laay la tudd Babacar tur bi waaw sëñ Babacar léegi di nga wax sa impression li nga gisee visite bi ah. waaw visite bi de li ñu ci gisee mooy dèjà dañuy dañuy ginnaaw bi ñu jullee ci yonente bi. Mm-hmm. ñu jullee ci suñu dañuy dañuy sant jullee ci sant yàlla baax a baax. ñu mm-hmm. wax ni fi li li ëpp importance man ñëw bi ñu ngi fi ñëw fii li ëpp importance mooy. Mm. ñëw fekk fi ñoo xamante ni say rakk lañ. Mm-hmm. say doom lañ say jarbaale aussi nga conseillé leen. Mhm. parce que nekk kaso taxut a bon. Mhm. kaso jombul kenn. Mhm. ñi ñu fi gis ñëpp presque jaar nañ kaso. ñu ngi fiy dégg seen tuuti ñu bari jaar nañ kaso. ñun dañoo ñëw pour waxtaan ak xale yi. indi leen wërsëg bi nga xam ne moom lañu suñu borom wërsëgee. ñu ñëw partage ak ñoom. bokk ak ñoom ndekki toog ak ñoom conseillé leen. xamal leen ni fii ñu nekk fii nii kenn ku ne war nga fi mën a nekk. mais nekk fi taxut a bon ba buñ fi génnee. ñu mën a nekk ñu mën a am parti réew mi mën a ko képp koo xamante ne ba nga métier tëye boo ñëwee ci ñu pare nañ pour jàngale métier benn métier boo choisir pour dem tamit pare nañ pour accompagner leen pour yóbbu leen seen parents yi nga xamante ne nag ñi nga xamante ne seen doom dañoo nekk fii ba duñ fi ñëw dama leen ñaan ñi laa war a sóore xale bant la rek tooy de neex naa dugal nekk fi taxul sa doom nga abandonné ko na nga ñëw nga seet sa doom nga conseil ko waxtaan ak moom mm. parce que xale moomin la xamul dara mm. ëllëg yow ma xiyam doom yi dañuy layoo seen waajur mhm. doom bu ñëw fi te masaru rek na la leen responsabilité parent mhm. ñu ngi si sa sa doom ñu ngi si sa loxo mhm. loolu ñu bàyyi ko xel bu baax a baax